وأغننا يا ربنا بالخدمة بالمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من أذى وديرا وأغننا بربهم بوجهك وأغنهم بربنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي برحمتك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 fikrati nawwir waxandi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, ñoo ngi nuyu mbokk yépp di ziar ñépp di leen baal baax tey leen baal baax tey ñaan yàlla it yàlla defal ñu kooru jàmm ak koor bu ñu nangu ci barkeb Sëriñ Tuuba di ziar bu baax alxalifatul aam li tariqati almuridiya Cheikh Muhammadul Muntaxa di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi ba lépp lu mu naan ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu yeggale ko ci teeyu ba kanam ni ki noonu it noonu lay ñaanale suñu waajur bi nekk ci biir di Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa Sëriñ Modou Faty Khary di ñaanal yàlla yokk wér gi gi te yàlla yàggal ko fi ci kanamu njaboot bi yépp te lépp lu mu naan liggéeyal waajuram ak Sëriñ Massamba yàlla àggale ko ci jàmm ci barkeb Sëriñ Tuubaa tey ñaanal njaboot gi yépp it yàlla dimbale ñu ba ñu mën a topp seen ginnaaw ba man di liggéeyal Sëriñ Tuubaa fu ñu toll ni ki noonu yi noonu la ñuy siyaara sëñ Mouhamed sëñ Moustapha am sëñ Massamba yi di ñaanit yàlla yokk ko kàttan moom it ak ku wér ba lépp lu mu naan liggéeyal waaye juróom mu mën ko àggale ci jàmm tey nag ñu amati mbégte di dellu seeti ci fii ci Daaru Karim ci jataay yi nga xam ne yàlla dimbale nañu defal ñu tawféexu Sëriñ Tuubaa bañ man di ko wéyal at mu ne tàmmulee ko daaw mu mel ne jataay la boo xam ne ku ko fi dégg doone guléet doone guléet ndax bokk na ci sabab yi tax kilifa di sancib dëkk dundal fa njaboot ga dundal leen ci wàllu ruux ak ci wàllu ay ñam kon ci kaw noonu kon ci la leen ci la njabootu Serigne Modou Faty Xare yi taxawale woon académie Daarul Karim bu ñu waxee académie nag mooy day yëngu ci wàllu xam-xam ak tasaare culture mooy aada yi aada yu baax la daaw mu mel ne yàlla dimbale woon nañu ba ñu taxawaloon ñaari jataay ba ñett ren it yàlla dimbulewaat nañu bañ mën a taxaw bañ fas yéene taxawal incha allah ñeenti jataay talaata bu ne benn yoon incha allah mu mel ne jataay la yoo xam ne it am gi solo foo ko takk weesu la ko ndax weeru koor mooy weer wi nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wàcce alquran min baytil izzati ila samaai dunia ba noppi wàcce ko nag jumlatan waxidatan ba tax muy wax ci téeréem bu mag ba naan inna anzalnaahu fi leylati alqadri wa ma adraka ma boobu ñu wàcce dufatan waxida ci leylatu alqadr ca la yàlla waxaat ne mooy ngën gi téere ngën gi téere nga xam ne lépp nga ca ku yàlla bëgg a gindi ca la lay jaarale ku mu bëgg a alagit ca la lay jaarale muy nga dëdd ko yàlla nee ci suuratu zumar ne allahu nazala axsana alxadiiti kitaaban mutashaabiha mathaani ba ci aaya ba fu mu yem kon mu mel ne ci la yàlla wàcce alquran te alquran boobee mooy ngën gi téere bu nit mën a yor ñetteel bi ci la yàlla wàcce wax ci julli wax ci weeru koor wax ci natt azaka wax ci wax ci aj màkka waaye lépp yàlla da ko wàcce nag def ko mu nekk mujmalan da ko boole waaye détaillé wu ko masalan bu ñu xoolee ci alxuraan amul fenn foo xam ne yàlla andi na fi attey koor andiwu fi attey julli andiwu fi attey aj màkka andiwu fi ni ki noonu attey génne azaka waaye benn lañu gis ci li nga xam ne moom lañu diine ji dig indi yàlla indi ci àtte yi ba mu leer nañ nañ nañ nañ ci alquran muy xam-xamu miraas kon loolu moom moo ñuy dugal ci suñu temu tay bi muy xam-xam boo xam ne it euh, incha allah danañ ci ànd ak suñu kilifa suñu Abdul Xabir mu suñu Abdul Baaxe mu Masamba mu mel ne danañu jàngatal am njàngat suñu Musa suñu Musa danañ andital am njàngat am njàngat sëñ Abdou Khadir mu sëñ Moustapha mu sëñ Massamba danañu indi am njàngat ci ndono ndono ci charia lañ koy wooyee mu mel ne bokk na ci xam-xam yi nga xam ne wax nañu ne ñetti yëf yi nga xam ne ku ci juum te tey ko yàlla nga dëkk ab xeex yàlla nee na ku gi dëpp ku juum ci miraas te tey ko da koy koy déclarer guerre inna alladina yaakuluuna amwaala yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira yàlla nee na ba tey ku juum ci takkub sëy da ngay daganal njaalo te boobaa moom ngay dëkk xeex ni ki noonu ba tey nee na ku juum ci àtte te tey ko da nga koy déclaré guerre ba tey ndax nee na wa man lam yaxkum bi ma anzala llaahu fa ulaayka humul kaafiruuna fa ulaayka humul faasiquuna fa ulaayka humuz zaalimuun kon muy ñett yoo xam ne ñett yu précieux la nekk ci jullit bi kon incha allah tey danañu defal am njàngat ci ndono sariya ndono nag bu ñu ko waxee mu mel ne dañ koy xare ci baatu warasa wala warisa waaw raa ak saa gu ñu tomb mu mel ne alxuraan da ko tudd ay yoonu yoon lu ne mu jublu ci leneen waaye incha allah xam naa ngir bañ a guddal danañ ko bàyyi moom mu jël temps bu baax macha allah mandal ñu ci fànn googu noonu bu ñu noppee it danañ jox kilifa yi. bala ñoo tàmbal danañ jox sëñ Saaliw mu ubbi ndax jataay bu ne dañuy wax ne bokk na ci li li sa jiglaay bu ko bàyyi ndax daaw la ko defoon ci kattanu yàlla ak ndimbalam ak ci baaxub sëriñ bi ren ñu fekkewaat ko bëggoon koo baaxantalewaat noonu insha allah bu ñu noppee doo ko jox sëñ Abdul Xabir mu yaatal na ci bu baax a baax macha allah kon xam naa ñu bàyyi sëñ Saliou mu ubbi buñ noppee ñu doog a dugg ci sëñ Abdul Xabib incha allah. bismillaahi rahmaani rahiim te nit ñi gindeewu xam seen diine am pas-pas bu baax seen digganteeg seen borom xam ni ñuy jàppe seen borom loolu moo doon bëgg-bëgg sëñ bi sëriñ bi te ci loolu la nekkoon sëriñ Massamba ñi nga xamee ne tamit moom la sëriñ bi defoon ndigal mu sañ ci dëkk bii tamit def na ci ay xikkamam ay ndénkaane xam-xam yu bare bare soo xam-xam yu bare sëriñ war xari xari mi nga xamee ne tamit moom la joxoon ndigal mu sañ ci dëkk bii lii rek moo doon ak bëgg ndax ci mag ñi nee nañ daan wax ne euh, sëriñ bu mënta jàng ba sëriñ bu amul xam-xam moo golo bu mënta yéem ñoo yem loolu mag ñi neen daan ko kon nag lii ñun bëgg ci sant ci gërëm ci bu baax a baax islam bu ñu wax naan dafa xañ jigéen cër déedéet bokk na ñu njëkk a jox jigéen ak cër ñetteel bi tax ñu am dem boobu tey muy aayaat dañ koo war a leeral dañ ko war a leeral ndax dafa am ay sew sew yu ci nekk sew sew yi ci nekk yoo xam ne incha allah si ñoom du baax si ñoom dafa am na sew sew yu ci am na ci yoo xam ne islam da koy tudd waaye du jublu dëgg-dëgg mbir moomee mooy ijaaza da ko da koy tudd gàttal ko waaye du ko guddal léegi nag pour ñu man koo guddal nag faaw lu mel ne dañu jël lu mel ne si ñoom xabir ñu mën koo tas ba sama classe bi nga xam ne ay jur xaal lañ mën cee jëfandikoo bi ci mujj yi mooy tax mooy dañoo jullit bi gën a amaat confiance ci diineem léegi wax nañu suñu saa yoo xam ne nit ñi dañuy séddale waaye doddatuñu rawatina am na ay application yu def ci internet yoo xam ne jël son bi naan la bul jàngati miraas jëlal application bi rek nga xool kan ak kan ak kan ay nga def ko ci biir mu wax la kenn ku ne lu mu war a am loolu day yombal mbir mi day yombal mbir mi kenn ku ne dootu dootu jàngati miraas waaye loolu day def ba ña ko defar ay yéefar la ñu doon waaye dañu bëgg seen diine ak seen ak alxuraan daal ne ko jëratul ñuy jëfandikoo alxuraan kon loolu boo ko defee dañ am daal jullit ñi mën a amaat confiance seen a amaat bu wér mooy am wóolute bu ñu tànn def ko incha allah kon xam naa ñëpp gi dinañ mën a suñu bu soobee yi déggaat ko mi ngi ak Touba ak Daaru ak ak ak إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة بها أفوز يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñoo ngi leen di ziyaare te di leen ndokkeel ci weer bu tedd bi di ñaan subhanahu wa taala mu nangul ñu suñuy koor te nangul ñu suñuy taxawaay ak suñuy jàng alquran ak lépp lu ñu def ci weer wi ci lu baax yàlla ñu ko yàlla nangul defal ñu suñu jotaay bii mu bokk ci ngën gi jotaay di jaare ci nuyu boobu sëriñ Cheikh Mbàkke mi xam ne mooy kilifa kër gi di kilifa pénc mi ñu di ko ñaan ñu di ko nuyu te di ko siyaare di ñaan suñu borom subhanahu wa taala doole ko wér ak kàttan di nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo toog ci jotaay bi bokk ak ñun jotaay bi ci nekk ñu ngi lay jox sa wàccuwaay te di la ziyaare di la ndokkeel ci weer di dellu di nuyu ñi nga xam ne ñoo taxawal lii ay doom ci ñun ñenn ñi di ay jarabaat ci ñu di leen ñaanal te di leen encouragé ñu gën a am yitte ci taxawaay bii nii comme ni ko mbokk yi rek barab bii da ko waajur wa di sanc foog naa lu mel nii moo taxoon mu doon ko sanc ngir ñu di fa dundal alquran ak di fa jàng xam-xam ak di fa joxe waxtu borom bi kon bu demee ba ay sët ci waajur woowu wëlbatiku fas yéene taxawal ab académie boo xam ne dañuy gëstu ak a sàmm ndonoon maam maam yi ak baay loolu dafay yokk suñu yaakaar dafay dara suñu xel di leen ci ñaanal baax ba liñ ci bëgg ak liñ ci yéene gis nañ pas-pas bi ñu ciy doxee ak niñ ciy liggéeyee ak liggéey ni koy defe ak ni mu setee am nañ yaakaar ne bu saxee rek foog naa li ngeen ci bëgg da ko am ndax dafa am loo xam ne mooy liggéey mooy dafa am base boo xam ne mooy nekk ci yow bu ko defee boo jógee du jëkk ci biir te fekk xam gi mi ngi teew liggéey bi dafay daal di li ci des nag moom mu sax rek wala ko mën a may te tànk saxul moom li ngeen ci bëgg du ngeen gis waaye comme nag cosaan li ko mën a taxawal ak xam-xam bi ko mën a taxawal ak pas-pas bi ak yitte ji mi ngi yaakaar naa li des bëreetul kon yàlla ko yàlla gën a saxal ba fi ngeen ci bëgg ak mel ne ñoom waa académie boobu dañoo sàkk woon ci ñun ñu ànd ñoom ci biir weeru koor wi jokko nañ ci ak ay yoon ki nga xam ne moo ko doon coordonné seen xaar yi ma ne teeloon nañu ko wax bañ joxoon suñu kàddu donte xatoon naa ngeen sa waaye faaw ñu ñëw parce boo xasee joxe sa kàddu rek moomatoo sa bopp waaye nag ñu am ci mbégte bu baax ak cawarte ndax xam ne lii jëf ju baax te defoon nañ ko daaw te tàbbiwuma ci woon te teewul ci bëggoon am nañ ko si kon damaa jàpp ne woor gi ak yaatal bi yéene ma aw yiw rek la moo tax ma sawar lool ci wuy ji donte nag xam nga ak man nga nekku fa waaye nag faaw ñu wuy si woote bi indi kem lu ñu xam ak kem lu ñu man mel ni dañoo tànnoon ne dañuy waxtaan ak ci ak diraasaat wa taxlilaat xawla al miiraas def ay gëstu ak jàngat ci miiraas ci ni ko tërëre mel ne dafa mel ne tomb la boo xam ne ñëw na waxtoom ndax comme ni ko mbokk yi jiit waxee miiraas danay am waaye boo ko dee teewee dafay mel ne dafay xaw nuru ak séddale wala jiiroo alal fekk mën nañu ko tudde noonu te boo xoolee ci mujj tomb bi mu na ñu ko tàmm toog nañ ci waxtaan bu wér-wér ndax boo waxoon ak diraasaat xawlal miiraas rek mën naa yaatu toog parce que boo demee ci code de la famille da ca fekk héritage te du bokk ak ak charia kon li ci laafal ci ginnaaw ko ko wax xawlal xawlal miiraas ak charia am solo parce que code de la famille danañ fa miiraas waaye du dëppoo miiraas bu charia ci loolu nag ñuy ñaan. suñu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne ku mu ubbil sa xel ubbeeku ku xamal sa xam-xam yokk yàlla nañu ubbi te xamal ko waaye dañuy nam na bi di jéem rek ndax arab ba wax ne man wala man yenn bu dar wasal ku tegu ci aw yoon di dox rek yàgg-yàgg da nga mas a àgg bu mel ne moom xam-xamu miraas bokk na ci xam-xam yi gëna a bokk na ci xam-xam yi gën a sell waaye bokk na ci xam-xam yi nga xam ne moom la nit ñi di njëkk a ñàkk bokk na ci xam-xam yi ëpp nag ay wuute ak werante waaye nag mel mu xam-xamu miraas dañuy gis xam wuute yi ci am yëpp ci diggante saxaaro yi daal yeneen xam-xam yi lu mel ni muamalaat wala bayxu wala shira boo demee da nga ci fekk waxinu mu qaasim wala waxinu keneen wala keneen waaye bu dee xam-xamu miraas wuute yi ñu ci gis yëpp dafay mel ne saxaaba yi rek la ñuy gis ñoom ñoo ci wuute seen biir tey gis nañ njariñal ijtihaad mi nga xam ne ak jëfandikoo xiyaas xam mbokk dañ koy weddi dafay mel ne njariñam dafay gën a bu baax a baax ci xam-xamu miraas xëy na buñ duggee ci biir danañ seetantal loolu bokk na ci xam-xam yi nga xam ne moom la nit ñi di ëpp lu ñu werante comme noonu ci saxaaba yi wuute seen biir waaye bokk nañ xam-xam yi gën a tedd li wax ne bokk na ci xam-xam yi gën a tedd li ci wàcc ay ahadis di ñëw di wax ci xam-xamu miraas dafa bari lool waaye dañu ubbee yenn yi nag doyloo ko mooy jële nañ ci abdullah ibnu mas'ud mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi annaas fa inni imraun maqbudun wa inna hada alilma sayuqbadu wa tadharu alfitan xatta yaxtalifa alrajulaani fi lfaridati fala yajidaani man yufassilu baynahuma saxaxahu alxaakim wa gayruhu wa xasanahu almutaaxirun yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa ne na di jàng xam miraas te di ko jàngalaat nit ñi mel ne jotaay bii mbokk yi taxawal dugg na ci di ko jàngalaat nit ñi mu wax ne man dama fiy jóge dootuma toog moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama fiy jóge dootuma toog di jàngale di kenn miiraas kon su ngeen ko jàngul rek da am coono te xam-xam benn day dem ba yàgg mu raaf jóge fi mu jóge fi mooy day dem ba nit ñi desal ginnaaw te loolu commencé naa feeñ da ngay gis ko jàng ab téere ba nekk si ci buntum miiraas daal koy tëpp ba ko xam lan moo taxoon aayat yusikumullahu wàcc ak aayat walakum walakum misl am na ñeneen wax waaye li gën a wér te gën ko jàpp dañu wax ne ci miraasu Saadu ibnu Rabia ci la aaya yuusikumullah wàcce woon wax nañu ne Saadu ibnu Rabia dafa faatu bàyyi fi mbokkam mu góor ak ñaari doomam yu jigéen ak soxna comme ni ko mbokk mi toogal Cheikh bu waxe léegi njëkk lislaam jigéen daawu doon masaan su masaan sa waajur bu masaan faatu rek ka fay góor bu dee mbokkum waajur bi def wala góor ku mag day jël alal jëpp toog ci noonu lañ daan doxee ci jaahiliya comme sax du dafa faatu bàyyi fi mbokkam mu góor ak ñaari doom jigéen ak soxnaam mu jël alal jëpp tëdd ci bi loolu amee soxna Saadu ñëw ci yonente bi te alayhi wa sallam fekk ko mu toog mu ne bàyyi fi ñaari doom jigéen seen bàyyi bu ndaw jëlal alal ji yëpp tëdd ci te xam nga ne jigéen bu ñu koy denc alal la tax innama tunkahu nisaaw ala amwaalihinna ñu ne bi waxee loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuntu dafa toog ne ci rek moom mu dellu ci këram ñibbi ba ca ëllëg sa mu ñëwaat fàttaliwaat kon ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay ñaari doomi Saad yi yonente bi ne ko nga jox leen ñaari soxnaam sii mu ko moom fu munu la wax nañ ne lii mooy sabab bi nga xam ne moo tax aaya bi wàcc dafa jël sumu jox soxna si jël sulu jox ñaari doomu jigéen la des ci alal ji mu jël xam-xamu miraas bokk na ci niñ koy taarifale dañu wax ne bu ñu ko waxee mooy xam-xam boo xam ne ci la ñuy xamee kan mooy dondu ak kan moo war dondu ak kuy dondu lu toll nan la war a dondu xam-xam miraas moo ñu koy jàngal kon borom xam-xam yi koy taarifal moom lañ koy taarifal dañu wax ne huwa ilmun yu'rafu bihi man yarif wa man laa yarif wa miqdaaru maa li kulli baax waaye ban xikma ak ban njariñ moo am ci nit ki faatu fexe ba ku nekk ndax ku faatu alal ji mu fi bàyyi dafa am ay àq yu ci ak te jullit bokk na ci war a gën a moytu ci mooy lekk àq moo tax xikk nekk sa àq ca alal ja mu egsi ci yow ba jot ci nekk góor gi jigéen gi sët baay ji yaay ji soxna ku nekk am na ñu fexe ba ku nekk àq jam mu egsi ci loolu mooy xikk mam miraat lan mooy ab àtte mu miraas ci sariya ab àtte mu mooy fardu kifaaya fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñëpp taxawee taxawaay bu war waxuma ñu taxaw ko taxaw boo xam ne wóorut bu fekkee ñëpp da daa am ñoo xam ne taxaw ci fardu kifaaya taxawaay ba war xam ne dara maa ngi ca su boobaa ñeneen ña ca des ñëpp di ay jullit taxawaay ba wàcc na waaye su fekkee taxawaay bu wax amul am nañu koy taxaw waaye su boobaa jullit ñëpp ko miraas kenn du ko lijjanti te ko miraas dafa am ay sabab yoo xam ne mooy tax. ñu war a miraas ak charte yoo xam ne mooy lëkkaloo ak saxaaba yooyu ba tax ñu mën miraas amit yoo xam ne bu amee donte sax charte yi ak yi dagg waaye am gi loolu am moo tax dañu koy tere mu bu ñu ñëwee ci sabab yooyu nga xam ne ñooy waral doon ñett rek la ba njëkk mooy askan wi sax saa yu askan amee lu sax lu wér moo xam ne kenn inkaaru dafa rak kenn wéetu ci lenn su boobaa kooku dafay doon ñaareel ba mooy sëy bu wér bu am ci lislaam bu nekk bu nekk sëy bu wér nekkul sëy boo xam dañ ko war a firi dama ne ku doon faatu ku doon ci yenn tawat yi ba nga xam ne amutuñ ci moom yaakaar su takkee soxna nekk sëy boobu wérul dañ koy firi kon soxna soosu bu ñu ko firee wala la ñu ko firee yàlla ko ko takkoon faatu danañu ko jox sadaatu misli waaye loolu doole ci miraas kon sa askan wu sax ak sëy bu wér ak koo xam ne dafa goreelu jaar jàng faatu goreel gi mu ko mooy sabab bi tax mu war koo doon bu dee ci maaliki yi ñoom dañ ciy dolli beneen te mooy te ñun bu ñu toogee fi dox ci maaliki yi mooy ñoom dañuy wax ne baytul maal day dem day doon bu dee yeneen mazahib ñoom dañuy gis ne baytul maal bu doon saa yu seen jëlee alal ji ba ñu war a am ñëpp am mu des dañ leen koy delloowaat dañ koy séddalewaat seen dañ leen koy séddalewaat bu dee Maalik yi ñu gis loolu moom suñ ko séddalee ba ñëpp am mu dañ koy jël yóbbu ko baytul maal kon ñett yooyu ñooy sabab yi tax a doon léegi charte yi yi xam ne mooy tax bu sabab yi amee nga mën a doon ndax sabab bi mën naa am te sart ba fa ne su boobaa doo mën a doon sart mooy ba ci njëkk mooy mu wóor ne ki ngay doon faatu leer nañu la dafa faatu moom mu mu suuf muy xëm ñu ne leer nañu dañ dem balaa nga taxaw a jëm daal dañuy bir ne kii moom moom faatu faatu wér bi mu dund mën na ko doon kon bi tax na mën a mooy ki ngay doon day fekk mu faatu faatu wér wala sax dafay jóge dem comme ni ko wane yi defee dem ci mbëkk mi ñu toog lu yàgg kenn xamatu ci moom dara imaam bi yor kilifteef bi julli ni daan de faatu na ci dond leen alal su boobaa ci àtte imaam boobu leen sukkandiku doon donte xamuñu ci ñun ba xam leer nañu la faatu wala def waaye imaam ko war naa faatu loolu ñu sukkandiku daa ko doon bokk a dond mooy kii dond day juddu ginnaaw bi muy doon jud judd bu wér lu wóor na ne bi muy judd indaal na ko loolu dugg ci maanaam bu jëkk bi mooy bu fekkee kii doon bi muy bi muy doon boo fekk ne bi muy judd indaal bala wala amul sax lu leer da cee sikkaat su ko waat ko waaye bu wóor na kii doon moom ki muy doon dund na ginnaaw maanaam moo njëkk faa mu dund ci ginnaaw ak mu dund fu mu néew na doon te benn seconde wala benn benn minute sax teewu da koy dox waaye mu doon dund bu bëri boo xam ne kenn amul si sax su boobaa ak loolu waaye bu fekkente ne mel ne ci misaal ku war a doon doon jàll fa fa njëkk koo faam suba bi ku mën a doon ci même bu ñu miraas kenn génnee teel kon bokk ne charte yi doon bu tax a doon mooy da ngay faat maanaam da dund ci ginnaaw ki muy doon maanaam day faat ba noppi moom mu desal bu doon te nag benn minute wala benn seconde léegi nag bu sax yooyu dajee ak actes yoo xam ne bu ñu ñëwee loolu donte sart yi ak sabab yooyu bu dee ci mazhabu imam Malik juróom-ñaari mbir la mooy ba ci njëkk mooy ak njaam képp koo xam ne du doom kooku ñàkk doom doom bi moo ko teree doom moom bu baax a baax du doom moom du doom moom du ko doom ak képp koo xam ne dafa rey lu war a doon dafa rey su boobaa du doom du doon ci donte nag sàpp yi ak sawar bi yëpp ña nga ko daje waaye nag ray gi ñu ko ray natay ko looloo da ko doon su fekkee ne ray gi dafa nekk ne daf koo sànni dara te jublu ko ci woon ko mu sax daf doon ko mu faaf ndax li dara su boobaa la ne dana doon ci alal gi ci faatu bàyyi waaye dii dii dañu joxe moom du jotoon bokk na ci tere mais ki dafa nekk diine chrétien ki nekk jullit waaye ki nekk majuus ki nekk jullit su boobaa ñoom ñaar ñu doon gàncax bokk na ci yi ko rek doon mooy koo xam ne dafa julli te indaale bu bakkan mais nag dafa julli ne neen jooyu gis lu sëq dafa lenn li wane ne ki am naa bakkan su boobaa nga xam ne kooku lu doon doon te sax julli na ginnaaw bi ci mu war a doon faaba ba waaye ñàkk def effort ba wane ne julli na te mooy gis li wut jooyu dafa dara su boobaa kooku lu doon bokk na ci tere boobu mooy ñaar ñoo xam ne dañoo war a doxalante ba pare ñuy sikk sàkk ci ñoom ñaar kan moo ci njëkk faatu xam na waaye dañuy sikk sàkk ñoom ñaar kan moo ci njëkk faatu ndax pour ñu mën a doxalante faaw ñu xam kan moo njëkk faatu ak ki mujj faatu suñ defee ba xam ne kii moo njëkk faatu kii moo mujj faatu ki mujj faatu moom la faatu day doon ci njëkk faatu léegi nag bu fekkee amuñu ci ñu leer ñu sànni ñaar ñu waroon a doxalante ànd mais ñaari way dañu sant ana dogal ñu def accident bi ñu ñëw ci ñoom bi ñu jëli ne def nañ accident dañoo fekk ñoom ñaar ñëpp ñu faal te xamuñu lenn ci ñoom ñaar kan ñu def faal kon bu waa ñoom ñaar ñu kenn du ko doon na bokk na ci tere doom mooy doom joo xam ne dafa juddoo ci rëbbante ba dem ci buntu ni tax dañ ko fekk mooy koo xam ne soxnaam dafa tollu diggante mu xamal ko ne ko doom ji nga ëmb moom du ma waajuram soxna si ne ko axakay ah yaay waajuram ñu werante ko moom yëkkati ko yóbbu ko ci àttukaay ba bu ko defee ñu ñaar te amul ay seere yu ko xam firnde su boobaa xam ne ko alquran bi yëg suratu nuur dañu leen di ku nekk leen di juróomeel ko dañu leen di gindoo ko rek juróomeel ko ak ngi yàlla su fekkee jëkkër bi dafa waat wàcc soxna si waat wàcc àttekat bi muy def mooy day kas seen diggante ñoom ñaar xam ne ñoom ñaar dootuñu dencante di ba faaw te doom jooju ci bu juddoo kenn du ko yéegal ci borom ci jëkkër ci borom kër ndax dafa wedd na juróom su ko defee doon ko ñëw même waajur bi nga xam mooy ci la rëbbandi am na ko ko doon waaye dana doon nag waajur bu jigéen bi bàyyi ko wala bu zina mooy doom joo xam ne juddewul ci sëy islam kooku doom ci sax mais nag comme xam ay niqaas ci wax ay bari leen ci télé Sénégal mooy def iftaane day doon ndax waajur moo ko dëgg la l'islam bu ñu mën naa ko dégg moo ko jur ndax médecine ak na koo xam ne tey suñu jëloon deret bu góor bi jël deret xale bi mën na nga xam ne moo ko loolu problème am na sax ñu koy def ko jur taxawoo nangu ko ne naa waaye li tax bu doon mooy dafa juddoowut ci sëyu l'islam parce que comme juddoowut sëyu l'islam nag su boobaa moom doomu jaaroo ko du doon seetaan naa ñenn ci ñuy wax ci sare ñu ixtaalu mel moom ñu ixtaalu mel moom fekk li problème bi mooy wéttiwuñ jur gi ak ñàkk bi jur islam waroon suñ ko même bu taxawoon boo ku nekk tamit maa jur doon jëf lu tax bu faatoo moo ko doon ndax lan la bu juddoowul ci sëy islam su ko defee loolu ñu doon yaakaar am na mbokk mu ko boole ci ay bëy yi wax ne wa yamnahu miraas fahlan sitta fa xamsatun tumnau minhum bakka al kubru war rekk wa qatlul amdi wa shaqu wal li'aani bughdul qasdi wa waahidun yamna'uhu fil haali wa huwa alladi lam ya'ra an islaami kon yooyu ñu juróom ñaar yi nga xam ne su amee nit ki daf koy tere ak doon doon koy sàpp la ak sabab ba dajale te ñu ñëw ci acte yi nga xam ne ñoo aju alal ji fi kifaatu alal ji mu bàyyi am ay acte yu ci àq yooyu nag ñu ko séddalee dafa toll ci juróom ba njëkk ci àq yooyu mooy àq bi nga xam ne dafa aju ci jëmmi alal ji ñu bàyyi alal ji ñu bàyyi daa am àq ju ci aju balaa nga def lenn dañuy lijjanti àq yooyu ba mu dem ba noppi ñu doo ko def leneen la ñuy def loolu mooy lan ci misaal mu mel moom dafa dem ci bitig ba lekk fa saaku ceeb tey dafa téléphone bii ba ko fa ci bitig ba daal dogal mu faatu kon àq la ci ñu jëli téléphone bi ñu fay la woon fay saako ca borom bi jël si téléphone indi ko ci alal ji war a doon kon àq yooyu ñu dindi ko aju ci ndiikaam aju ci lim fay ba pare doo koy loolu lañ koy njëkk lijjanti ba noppi wala sax bi ñu dafa am ci ay balaasam loo xam ne muumu ko dañ ko koo ko kon loolu alal la jox ne àq jàmm ji am génn alal bi xool ku ko dénkoon ñu delloo ko xool la fa def ba ko soog koo soog koo miraas doog a jëm ci yeneen yi ci des kon ba ci dëkk mooy àq ji alal am ñu bàyyi ñu jënd ko ba noppi wala mu tooñ kenn dana mu dagg baaraamu kenn war a joxe biyee kon balaa nga def dara dañu dem jël biyee jooju ci alal joxe biyee bi ba pare doo ko mën a jël ci leneen ñu bu mooy ñu faatoo ko ki ñu bàyyi alal bu faatoo dañuy jël ci alal ji ñu fi bàyyi lu ñu koy sànge ñu koy sànni ñu koy suulee bu dee ba mu dëkk ña fay gas bàmmeel dañ leen di fay dañ leen di fay xaalis boobu su dee ña fay yenn ay yiw seen aada dañ leen di fay lépp loo xam ne daal na ci alal te ci diggante bi koy waajal bi ñu koy jébbal boromam bu dugg suuf lépp lu ñu ci ay xere dañ koy génne ci alal yi nga xam ne kii faatu ñu bàyyi waaye nag bu ñu génne ñu bañ a mottal waaye ñu bañ a ëppal nag xaabaabal def loo xam ne farata ñaar ku faatu ko xam ne lañ koy sàngee lañ koy sàngee lañ koy waajee lépp kam aju woon ci moom muy sëriñam moom mooy dox diggante moom loolu kon bu baax kenn dootu digg génnee ci alal yi su fekkee loolu amul nag dañ koy génne ci alal ji nga xam ne moom la fi bàyyi ba noppi suñu nag xool yi nga xam ne moom la yoreele waxuñu bor yi ko yoreele bor yi nga ne moom la yoreele moom ci faatu ñu fay ko suñ ko fayee ba noppi nag doo ko dem lijjanti nag boro yi xam ne moom lañ ko yoreel lijjanti nit ñi ñëw fay si ko waaye bokk na jooyu mooy nga xam ne moom daf koo yoreel woon ba faatu te fay ko subaa gëstu ku mu yoreel bor nu bor ba toll ñu fay ko ba noppi la Cheikh Xalil di junj naan su ma tuqdaa duyoonuhu bu ñeenteel bi mooy su fekkee moom ki faatu dafay bàyyi woon ay ndénkaan ci misaal mu su ma fi jógee na ngeen ma tabaxal jàkka wala su ma fi jógee na ngeen ma tabaxal daara daal di am lu mu dénkaane su boobu ko te yi mu dénkaane bari ñu compoo ko tam ñu tas ko ci li mu dénkaane ci misaal mu mel dafa ne nañ ma tabaxal jàkk tabaxal ma daara te bu ñu xoolee nim sulusul baax yi bi mooy bu ñu xaajee àll ñetti xaaj bi jàkk rek la mën a tabax mënut tabax daara kon su boobaa dañuy xool ñu ko tasee ci diggante daara benn ñu tabaxal ko jàkk bàyyi daara ji waaye kenn du jëlaat ca la ca di jël ndax loolu moomu nëkkatu àqam àq way doon di la doon di loolu yaakaar naa am na miraas suñu suñu soi yowanoon xëy na nag feeñoon na ci ñu mbokk mi wax euh, mambay ñang yàlla yàlla yokk ko leer xëy lu mel noonu di nga woon ay jàkka daara yu bari bari waaye bu ñu xoolee li li ñu war a doon sulsul baax yi bi mel na ne sax mënutul sax far tabax jàkk suñu soi nag nañ ko jël dugal ko ci jàkka ju doon tabax ci dëkk bi fii ngir mu tàbbiwaale ca moom loolu da ci iftaar moom sëñ bi léegi nag bu fekkente ne moom bi mu dénkaanee ci misaal dana nañ ma tabaxal jàkk ñu xool sulusul baaxi bi mënut a tabax jàkk waaye doom yi mu jaboot tañ war ko ñëpp déggoo nañ ci ne nañ jël ci alal ji mottali ba mën a tabax jàkk ba tey dana ñoom ñi nga xam ñoo war a doon bu fekkee d'accord nañ ci ne nañ jël ci liñ moom seen ak dooleel ko ci lim dénkaane ba mu mën a jàkk ji la def ñu doo ko doon suñu wéyee loolu te su boobaa loolu dana wéy su ci kenn ci ñoom lànkee doom ci jigéen la sax téewul du wéy dañ koy tiri moom la seen xalil di junñi naan summa wasaayaahu min sulusul baaxi léegi nag suñ génnee ndénkaan yi ci sulusul baaxi bi la fa des ca alal nag ñooy doon loolu la ñu soog a doon kon léeg-léeg nit ki faatu sax ñu génne yii ñu wax bara dafa des am na miraas mu teewoon suñu benn xarit bu ñu wax maxtaar na yàlla yokk leeram yàlla dogal bi ñu faatoo ñu xool bor yi mu yoreloon xool yi mu def bi ñu xool sax laataa ñu agsi suñu ndénkaan sax li mu bàyyiwoon ci alal dafa jeex dara desul kon suñ génnee yii ñu lim ba pare su fa dara desee nag ñuy doon doo ko taxaw ne dañuy doon su fekkee dañoo génn yi mu jeex kon waa ñoom duñ doon dara kon nañ ci dégg nit ki dana faatu war kenn ñu indi na lool sax ndax dañoo jàpp ne ab leçon la boo xam ne wala ab ay am njàngat moo xam ne ay fan lay laaj incha allah te def na jëmal na ko ci aw kayit wu yaatu boo xam ne bu soob yàlla bu weeru koor jeexee jàmm ba ñu tal ko incha allah dinañ ko génnee ab téere boo xam ne li ñu fi jot a waxtaan lépp dañ ci yàlla bu soobee yàlla. وأغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورهما واجعلهم فرعونا وخيرا وكفهم من أذى وليلا وأغننا بركهم لوجهك يوم استدار النسب وجل لنا هنا وأنا هذا لا